aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaan rahim mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu baax di ci turu soppe oustaz Alioune Sall yu nekk fii ci Brescia ci itali ni ñu ko baaxoo defee at mu jot ci conférence bu mag bi ñu baaxoo taxawal ren nag ñu jàpp ko le 13 avril incha allah ñu ngi koy defee ci caméra de commercio ñu ngi jéggul bu baax nag ci band annonce bi njëkk a jàll ñu waxaan Fera hôtel Fera mais dañoo amaat caméra de commerce foofu leen koy defee saal bi nag dina ubbi 17h30 waaye waxtaan yi bëgg nañ mu commencé 18h incha allah ñu ngi ci woo mbokku jullit yëpp amul xàjj amul seen ñu ngi ci woo ñëpp. waxtaan yu am solo dina fa am nag yemul rek ci diine waaye dinañ ci waxtaan yi suñu àdduna ndax ñu ñëpp xam nañ ni ab jullit àdduna ak àllaaxira la war a boole. ndax wabtaqi wa fi ma ataka Allah dar akhir, waaye wala tansa nasibaka min dunia ñi ngi ci wo julit ñep bu ko defé oustaz Moustapha Fall eh, eh, monsieur Moustapha Fall ak Ibrahima ñaan den fi indi ay ay ay gindi yu am solo fi ci eh, Italie ak loi yi fi xew ñi ngi jox suñu cadeau suñu jëwrin Cheikh bi kay seen alaykum a'udhu billahi min aseytaan rajim alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk juliti ñoo ngi leen di nuyu di leen ziarah di dellu si rek xam naa di leen fàttaliwaat euh, bis bi nga xam ne euh, baaxoo nañ ko def at mu nekk ak Oustaz Alioune Sall muy conférence boobu te ñu jàpp ko le 13 avril incha allah ñu njëkkoon a wax nag ne dañ koy defee ca euh, hôtel Fiera waaye dañoo delluwaat fañ ko daan defee muy caméra commercio via Inaudi numéro 23 foofu lañ ko bëgg a defee incha allah waxtaan wi nag ginnaaw la fa Oustaz war a waxtaanee mu jëm ci diine. Euh, fas nañ fa yéene invité tam oustaz Modou Fall mu ubbil ko jataay ba waaye bëgg nañ fawoo tam ñi nga xam ne ñooy waa patronat bi mu mel ne Moustapha Fall ak euh, Ibrahima ñaan ñu leeralal ñu li nga xamante ne nii ay loi yu bees la te ñi nga xam ne mooy gouvernement bees bi indi ko fii te ñu bari umpule ko ci ñun kon euh, ñi ngi ci woo ñëpp di leen ko fàttaliwaat su bis baa incha allah la 13 avril wasalaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di yëglewaat chaque at li nga xamante ni tournée bi xam ne Oustaz Alioune Sall dina def chaque année mu jóge Sénégal ñëw itali tournée bi muy def ren nag comme niñ ko daan defee at mu jot waa Brescia woote waat nañ ci Camera di Commercio ñi ngi woo suñu mbokki jullit yëpp association yi daayira yi

à partir de 17h30 xam naa waxtaan incha allah programme dinañ ci dugg oustaz dina commencé ay 18h yooyu loolu daal incha allah moom lañu fas yéene. déedéet ndaxte comme chaque année du am waxtaanu diine kese parce que tam suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di fi dund muy Ibrahima Niang bi nekk ci jeel ak Moustapha Fall mi nga xamante ni mi ngi nekk ci ISRA yàlla suturaal leen ñu jàngal luwaay yi réew mi mën a jox nit ñi message boo xamante ni dinañ ko xam ci suñuy dëkkin fii ak tubaab yi ak luwaay yi loolu tam dinañ leen jox temps bu yaatu incha allahu rabbi bu ko defee ñoom tam ñu gën a leeral parce que tam nekk ci dëkk di dund da nga war a xam tam li ngay dund daal. asalaamaaleykum wa rahmatullah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 ñu ngi leen di wooyee ñëpp ngeen teewe ko suñu mbokk yi nekk France ñu nekk Allemagne partout en Europe ñu ngi leen koy yéegal di leen ñaan yéen ñu ngeen teewee bës boobu ndax dañ fa waxtaanee lu am solo incha allah kon nag yéen ñëpp ñu ngi leen di xaar ba boobu le 13 avril à la caméra du commerciaux bu Brescia asalaamaaleykum asbilah mina sheytaani rajim so maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di woo sama mbokk jullit yëpp ci suñu conférence bi ñuy def le 13 avril fii ci Camera del Commercio a Brescia di woo waa Prevale bi ma dëkk di woo waa Brescia waa Calcinato waa Lonato waa Desenzano di woo waa Travagliato gip gox bu nekk fii rek maa ci conférence bi incha allah avril Ciao a tutti perché è mattina buongiorno e sera buonanotte. Siamo qui per invitarvi a Brescia il 13 aprile a Camera del Commercio per fare una conference. Invitiamo tutte le persone di Prevalle, Travagliato, Lonato, Brescia, Bergamo, di tutti i paesi d'Italia e vi aspettiamo.